ko ñaanal yàlla dëgëral ko te kàttanal ko di ndokkeel mbokki jullit yépp maa nekk ci àdduna di xam ne ne bis bi ñëwati na su bis bi ñëwee lu gàtt-gàtt war na am ay tomb yu néew yuñ fàttalante suñ diggante ci li nga xam ne moo tax yàlla indi nu fi moo taxit mu bàyyi nu fi muy jaamu ko ak nun koy jaamoo tabaski nag njàng mu yomb la moo xam ne ku ne mën na koo xam ndax ay jàngale ci nekk yoo xam ne lépp ay jikko la dafa am ko xam ne yàlla daf ko jox ndigal mu jox ndigal la ay njabootam ay njabootam danga dangoo ànd ak moom ci def ndigalul yàlla ba yàlla gërëm leen ba sant nu nun ñii nuy dundal sunna soose kon tabaski kon neex dagan lañ koy wax kon danga ci am sa àdduna am ci sa yàlla am ci sa biir am ci sa yàlla waaye yàlla ji nag moo ñu gën a yitteel ndax yàlla nee na amul soxla ci ndawal gi waaye ragal yàlla gi nga ciy jëlee moom la yàlla soxla kon boroom kër gune ne bala ngaa tiim xar mi di ko rendi nattal sa digganteeg sa kilifa mu yàlla ba xam lim lay digal noo ci def lim lay tere loo ci bàyyi su fekkee ne ndigal li yàlla yi yaa ngi ci def li nga li nga man lépp tere yàlla yi bàyyi nga yépp su boobaa am nga sañ-sañu rey xar mi sa dara du la ca fekk su fekkee ne ndigalal yàlla yi doo ci def dara mbaa la ci ëpp doo ko ca def tere yàlla yi doo ko bàyyi xar mi bul ko laal yow xamal ne taxoo tabaskee jóg kon kat borom kër bu ne war naa natt boppam balaa rey xar mi ba xam lu mu def diggante ma kilifaam waaye doom ju ne nanat digganteem ak baayam baxam bu ko baayam digalee dana ko def wala bu ko baayam teree dana ko bàyyi su fekkee bu la sa baay digalee doo def su la sa baay teree doo bàyyi xar mi de bu ko sa baay reyee tam yow bokkoo ci bu lekk nga jotee boo roo bokk ci ña cay lekk yow amul sañ-sañu lekk ca ndax la taxoon ñu di ko ñu ñu ñu di ko digle yow bokkoo ca jigéen ñi képp koo xam ne xool nga seen diggante ak sa borom kër xool ba xam ndax li la war seen diggante te yàlla waral ko yaa ngi koy def wala defoo ko su fekkee yaa nga koy def yow de xar mi buñ la ko joxee bu la neexee lakk te lekk ca su fekkee ne sa diggante ak sa borom kër jéemoo ko sellal lu la neex ngay doxe luñ la digal nga bañ luñ la tere luñ la luñ la digal nga bañ luñ la tere nga def ko su boobaa de na nga xam ni yow koy sañoo sañoo sañoo lakk ca xar ma ndax yow ku lakkale nga nag ku lakkale nag wërta lakk jëm xar kon ñett ñooñu rek ñoo ko séq ca ñooñu nag buñ jagee rek àdduna jag borom kër bu jagee njaboot ga jag doom yee jag soxna yee jag àdduna jag na suñ yàqu àdduna yàqu na kon kenn ku nekk na seetaat boppam bu baax a baax kon nag bis bi ñëwati tomb yi ñuy fàttali ko yu gàtt la ndax dafa xat xanaa lislaam bi nga xam ne munuñ cee ñàkk a yëg yëg-yëg di xam fu mu toll ci àdduna bi di xam fu mu toll ci senegaal lu ci nekk nu xool ko ba xam fu mu toll ba xam julli yi ñu ngi ci yokkute yooyu ñu ngi ci ñi ngi ci dellu gannaaw jàpp naa ne nag bu ñu ko seetee jullit yaa ngi dellu gannaaw ndax dellu gannaaw jullit mënta weesu kaaba ga daanaka mën naa ne kenn aju fa kenn ajiwut màkka loolu nag dellu gannaaw mënu ko weesu ndax aj màkka gi rekk de moom lañu defut waaye mboolem xeeti caaxaan yi nga xam ne ñu ngi koy def ci àdduna di ña ko doon def ña koy def ba tey bàyyi wuñ ko ma defee nag ñi fi nekk ay caaxaan su fekkee ne maanaam mënuñoo bay kon nag ñi fi nekkal dëgg waruñoo mën a bay kon dellu gannaaw am na ba kaaba gi kenn ajut kenn jógiwut Sénégal kenn jógiwut ci benn réew dem màkka aji fa te la jaadu mooy gannaaw jullit yépp ko bokk suñ demee bu bëgg a jël décision bu toll noonu ñu woo umma islam yi bépp ñu daje borom xam-xam yi ñu natt ba xam nu ñu war a def ci aj gi buñ nasee ba yi dañ am am solution boo xam ne buñ ko tëralee lislaam li mu bëggoon dana ko am tey benn yàqu-yàqu du ci waaye gis nga biñ jëlee seen décision bopp ni mu demee kon ñu ngi deltu gannaaw bu baax a baax foofu nag àdduna bépp la daj foo dem ci àdduna bi ma fa foo dem ci àdduna bi foofu noonu la yàqoo dañuy ñaan yàquteg àdduna gii nga xam ne lislaam moo ci ëppale ñi fi nekk te nekkal fi lislaam tey yëngutu ci lislaam te xam leen noo ngi leen di woo noo ngi leen di woo ñu gën a taxawaat gën a jàppaat gën a gestuwaat umma islamiya gën a dajalewaat lislaam gën a dajalewaat seen kàddu gën a dajalewaat seen sappe dimbale lislaam ba mu génn ci fii mu dugg fii mu dugg caaxaan génnewu ko fi ndax ñi fi nekk yor doole yi te war a taxawu lislaam amuñ soxla ci diini kon dañuy woo nañ waññi ko dimbale jullit yi jàppale leen xam ne àdduna bi tas na yéefar yàq nañu àdduna tas nañ ko te julli yaa ngi ne tekk di xoole suñu dellu gannaaw gi ak suñu lii ñu dal ci àdduna bi noo ko teg suñu bopp ndax yàlla waajal lu ñu waajtaay wépp lu ci des lu ci manqué ci ñun la kon nañ takkaat suñu digg xam ne àdduna bi yàqu na te ñi nekk ci bopp yi ñoo ci war a taxaw boo demee Amérique waxoon naa leen ci Ronald Trump bi fi nekkoon ne leen ku bon a ngi nii waaye nag gis nga lim doon bon doon bon mën moom tàkk tàkkal la woon boo ko jegee mu lakk la waaye gis nga Joe Biden mii fi nekk nii moo gën a bon moom ak max la ak max la moom moo gën a bon max la dalay lekk ba nga dee te doo ko kon bàyyi leen xel ne ñoom ñépp ñoo yam yàlla yàlla toroxal leen Netanyahu Netanyahu daanu na yàlla yàlla gën a torox yàlla yàlla gën a gën koo toroxal maa ngi leen di bégal ne waa ji fi doon caricature yi bi di ko wax lu bon wallahi deena bëkki dem ma ci bàmmeel ma ngi ca paxum sawara tey bis bis ni ki tey yàlla yàlla gën koo toroxal adduna noonu lay deme de noonu lay deme de kon nag addunaa ngi noonu li ci des nag mooy def siwaat suñu gi gii noo ngi woo kilifa yi diine yi moo xam murit la moo xam tiijaan la moo xam laayeen la moo xam xaadir la moo xam association islamique la ñu dajalewaat kalimatul muslimina fexe ba jullit yi nekk benn réew mi kat li ñuy bëgg a dal dara jaru nekk cim réew ne yaay quatre-vingt-dix pour cent cim réew wala quatre-vingt-quinze wala quatre te yow mënoo faa tekki dara mënoo faa dara te dara warulu ko lu mun noo fexe fexe fexe ba déggoo kenn ku nekk yaa ngi xëcc sa barab di korkoral la nga yor te dara du ci yàlla bu doon yàlla nu mën a déggoo ñee ngi julli tey ñee ngi julli démb waaye boo ko toppoon itam la ca biir kenn ku ci nekk da nga gis ne am na looy xëcc ngir sa adduna waaye yàlla taxut bu yàlla taxoon mën a ñëpp daañ mën a nekk benn yàlla moom ñëpp a ci xaj waaye kenn ku ci nekk yaa ngi wut sa dara yey bopp di wut loo doon wut koo doon am looy bëgg tax leen lu nekk nga def ko doo doo jéem a jéem a ànd ak sa morom julli bu sa morom julli jéemee jéemee nii nga jéem ne ak lay woo mën a lay adduna nga bëgg adduna nga wut te xam nañ ko bu baax nañu dellu siwaat dajalewaat doole julli yi ba réew mii ñu nekk li fi wax a dama taxawal nu taxawal ko ba ki démb kat dama dégg benn politicien bu wax ne moom reconnaître pouvoir pouvoir religieux nee daal moom pouvoir judiciaire la xam ak exécutif ak ak législative nee daal loolu la xam waaye foi religieux xamu ko ma ne ko yaa bonte ñàkk jom yow nga nit jullit l'islam yar la juddul la yar la màggal la boo dee moo lay toppatoo boo liggéey si ci ngay dekki nga ne nga boobu yow reconnaître ko xam nga ne boobu yar moo bon loolu bi ko déggee métti na ma ma xam ne jullit nag ñoo xamul seen rôle ñoo taxawut seen taxawaay kon jullit yi nañ dellu siwaat nañ dellu siwaat boolewaat seen bopp xam ne lii ñuy def kat ñi ne ci bopp yi ñi ne ci gannaaw dañ cee mënul dara waaye xam nañ lépp nañ xam ne am xel de moom kenn mënu koo bank nit ki mën ngaa fexe ba mu bank ay wóomam waaye am xelam di ma mënoo ko bank loo def mu xam xanaa da ci dul man dara kay kon nan nu dimbale nañ ñu dimbale bàyyi ŋaayoo bi ak xëccoo bi ak korkoroo gi ak beroo gi xam ne lislaam benn la moom moo ñu fi tax a nekk kenn ku nekk jox sa moroom loxo ñi ñi war a toppee toppee li ñu war a taxawal ñu taxawal ko lislaam am baat ci réew mi loolu loolu de ci nii rek la ñuy mbokki taalibe yi noo ngi siyaare sëriñ Muntaxa di ñaan yàlla mu yàggal ko fi kilifa gu mat kilifaa ngi noonu ku mat wéerukaay nga noonu ku am yërmande nga noonu ku mën a dimbale doomu aadama ngeen ku am yaakaara nga noonu yàlla yàlla fayal nu ko te dëgëral ko te kàttanal ko noo koy siyaare di ko jaale sëriñ Mamor Mbàkke mi nga xam ne moo jiite woon daara yi yàlla yàlla yokk ay leeram ca barsaq ahmadiya ci barkeb sëriñ Tuuba liggéey na ba ko yàlla fayal sëñ Muntaxa de yéen murit yi junj na wax na lenn lu nekk wax na ko waaye nee na yéen murit yi ngeen booloo nekk benn sëñ Tuubaa ñaanoon na ko ñaanoon na ko ne yàlla yàlla nga def murit yépp yàlla nga ma dajaleel murit yépp fi xis ni kal xasini fi xis ni kal xasini sa tate ji yàlla nag ma ci dajaleel murid yëpp bañ nekk benn sëñ Touba ñaanoon na ko ñaan googu yàlla dëggal na ko sëñ Muntaxa ñëpp ànd nañ àndandoo ci moom waaye joxañ na nag ab joxañam dañ ko war a jàngaat bëkki démb isbu tarqiye biñ dikkee siyaare ko isbu tarqi yëpp la boole def leen ñuy benn nee na ngeen àndandoo nekk benn joxañam boobu nag murid yi nañ ko dégg kuréel kuréelaan yii daayira daayiraan yii sëriñ bi dafa bëgg ñu ba ñu bàyyi ko def ko muy benn muy benn baat di benn kàddu nu man koo dimbalee ci li muy liggéey waaye yoon wi nu aw kaddu yoon kenn ku nekk def sas kuréel kenn ku nekk def sas ruq kenn ku nekk sama daayira ngi nii kenn ku nekk sama association ngi nii kenn ku nekk def dara kenn ku nekk bis boo xëyee damay saari sëriñ bi sëriñ bi day xëy suba ba ngoon jaamu yàlla guma mat sax dana ko tëg ngir kuréel kuréelaan yii suñ ko bëggee jàppale ci liggéeyam bi nañ boole suñu bopp te bàyyi yi ñuy boo fi gis bu nekk la ci ëpp ay gaay lañ yoo xam ne dañoo bañ ku leen yilif wala bañ a ànd ak seen i morom wala bëgg a nekk ca bopp ba wala lu ñu fexee ba lekk kees ga te kenn du ca kenn du ca man dara dong la ñuy def bari na fi daayira yoo xam ne ñu ko jiite yàlla taxul ñu jiite ko yàlla taxul ñu sos ko bëgg nuñ tappalee bëgg am baat benn ñu politique ko wala ñu lekk xaalis ba wala ñu yilife ko seen i morom wala ñu amee ci ay daraje loolu lañ jublu waaye yàlla taxut bu yàlla taxoon kon daayira daayiraan yi koñ boo nekk ñaar fukki daayira fa kenn ku nekk bëgg xëy seeti sëriñ bi sëriñ bi dootu am benn jot tanoo ko teg nan bàyyi ñuy def nañ bàyyi ñuy def te jàppale sëriñ bi ci liggéeyam bii takkaat suñu ndigg yi nag te bàyyi caaxaan te xam dañoo ànd sëriñ bi ngir yàlla ànduñu moom ngir àdduna kon daara yi nañ xoolaat daara yi daara yi nañ takkaat seen digg te organisé wu waat te bàyyi li ñuy def kenn ku nekk as ndaaraa nga fa kenn ku nekk cap ceppal as ndaaraam te yàlla taxut danga ko faa def dong ngir bëgg koo dunde ci kaw nit ñi te yàlla taxut am na luñ ci xam daara yi nañ leen boole ñu nekk ay daara yu mag ñu organiser leen teg leen ci yoon woo xam ne bi bu ëllëgee ci si biir dana mën a am taxawaay bu dëgër buñ taxaw ndax daara yi kat xañ nañ leen seen seen àq te seen àq jooju ñu leen xañ nag li feeg li feeg ànduñu nekk benn nekk benn doole nekk ci biir lislaam lislaam ànd ak ñoom di benn boobaa àq jooju duñ jot mukk ci àdduna te te mbir nag lépp luñ nangoo ci yow ci doole boo ko bëggee jotaat doole nga koy jote doole ji nag weesuwut du du du du xar baax du dara nañ fexe ba kilifay diine yi daara yi ak ndonga daara yi ak ñu jóge ci daara yépp am poids électoral bu wóor boo xam ne bii boo ëllëgee si biir képp kuy sox kuy sàkku réew mi da nga ñëw wax ak ñoom bu buñ la ko joxee da nga gañee buñ la ko joxut doo gañee su keroogee lañ bëgg a wax danañ ko wax waaye li fekk loolu nag cooway bari rek waaye duñ leen jox te waaye fekkoon ne kenn ku nekk xam nga ne bala ngaa gañe réew mi da dem ci kilifay diine yi parce que ñoo yor bu mag bi da ngaa ci daara yi ndax ñoo yore mbooloo mi su su keroogee soo ñëwee ci daara yi ba laa jox réew mi dañ la jox seeni sart yi nga xam ne boo nangoo sart yi ñu ànd yow boo nangul sart yi ñu wan la gannaaw te tey di xam nañu ne ku fi falu ku nekk daa neex sëñ Muntaxa daa neex kilifay diine yi noppi gii ñuy noppi nag ñu naan sëriñ si dañoo waroon a wax wallaay dañoo amul laa biir rek waaye ku fi fale ku nekk noppi gi noppi moo la fal waaye bu ñëwoon watee leen diw wala wan leen gannaaw diw xam nga ne balaa ngoon nit ñi wan la gannaaw wala balaa ñi fal la bu fekkee ñoo ko digli sëñ Saliou dafa waxoon ne bañ ko nekk koo farle dana leen yéen parti yi duma ma ci farle kenn ndax gëm naa ne yéen parti yépp sama njaboot ngeen séddoo nit nag mënoo séddoo ak njabootam ba noppi nga yéene kenn ki aw yiw ka ca des nga di ko yéene safaan foofu la kilifa yi nekk kon nañ takkaat suñu digg diine yi bi ci toppaat nag mooy politique bi politique bi de moom ñàkk yaakaar rek lañ ci def ñàkk yaakaar rek lañ ci def ndax réew mu tuuti bu mel ne Sénégal ñaari téeméeri parti ak nangam nekk fi xam nga ne tappale weesuut loolu ñaari téeméeri parti ak nangam nekk Sénégal gii xam nga ne tappale weesuut loolu loolu moo lay xamal ni politiciens yi li ñu bëgg mooy war ci kaw doomu aadama yi di leen nax di lekk seen alal di leen tooñ te duñ ci man dara ñaari téeméeri parti ak nangam cim réew xam nga loolu loolu du dëgg jaaduwut tey xam nañ du dëgg doxin wii ñuy dox maa ngi ñaan ñu soppi ko président bi de loo ko bañ bañ da nga xam ne liggéeykat la ndax mi ngi liggéey moom desu ko repressé desu desu ko desu ko xas ci ñàkk liggéey mi ngi liggéey mi ngi def kem kàttanam waaye politique am bii muy politique nag la kenn d'accordu façon bi muy politique lañ d'accordu façon bii da yàqum réew façon bii da yàqum réew ndax yàqum réew weesuwut fexe fexe fexe ba waa réew ma gëmatuñ dara loo leen wax ñu weddi ko même dëgg boo leen ko waxee ñu weddi ko corona ngi nii de wax nañ leen troisième vague bi ñëw na te nit ñi gëmuñ ko lu tax gëmuñ ko mooy dañ leen ña yàgg a wax lu dëgg ba buñ leen waxatee dëgg duñ ko gëm loolu da yàqum réew buñ demee ba kenn gëmatul dara loolu dara jaru ko te ñoo ko teg nit ñi nag meluñ woon nii te lii kanam lay jëm day mujj àgg ci ba dara dara nit ñi dootuñ ko gëm lu leen di rey de ak si boo boo leen ne woon gaynde gaa nga nee di ñëw seen ku muy gaynde it ngay wax rek waaye du gaynde loolu nag dara jaru ko loolu nag dara warulu ko lu may ni ñuy foyee politique bi loi yii nga xam ni dañ koy foyee saa boo amee problème situation boo xam ne néexu la nga seen loi boo ko réglé tëral ab loi assemblée wate ko bu ko defee loi ba nekk fa nga regle sa bu ëllëgee nga bu sa nguur jeexee nga dem wàcc fa loi ba te gis nga bul xas nguur gi rek de xasal classe politique bépp koo ci xam rek xam nga ci def boo ki la li li la naqari ci nekk ci nguur ci nekk gut ci nguur moo nekk ci moom daa ak seegul rek loi yi fi jiitu woon seet leen ko loi loi quatre bii ngay gis mboole opposant bu fi ñëw dal nga ci loi bi waaye boo boo dee opposé di wa dal ci loi bi ba xëy nekk président gis ne loi bi daf la arrangé nga waccaat ko fa ndànk doo ko laalaat ca Abdou Diouf nga koy tàmbalee Abdoulaye Wade baax si ci moom mi bëkki dem bi gën a jege dong arrêté Ousmane Ngom fi la leen fekkoon arrêté Ousmane Ngom ñoom ñi ko doon xeex ñëpp tey jii bi ñu agsee arrêté Ousmane Ngom xool mu arrangé leen dañ ko faa wàcc ne cel kenn waxatu tey jii ñi ngi ñëw di watewaat ay loi yoo xam ne yu day waar la bi dañ koy wate waaye maa maa ngi ñaan président mbirum góor jigéen bu mu ko nës-nësal na ko criminaliser ba mu leer ne gouvernement bi àndu ci kenn àndu ci ndax population bi moom ànduñ ci tappale yi ñuy dugal ci biir nag laa bëggoon ñu génne ko ci ndax moom wax na ne moom du fi am mukk waaye boo demee ci euh, niveau code de la presse bi yéen journalistes yi lalal nañ leen foofu ndëgg sarax goo xam ne xaw ma yéen a ngi koy xam xaw ma xamu leen ko gis nga orientation sexe culte et genre lañ ca teg bàyyi liwu leen ko xel nag yéen journalistes yi waaye su ngeen watuwut yéen yépp loi boobu moo leen dugal ci kaso bi xaw xam ngeen koom déet nag kon bàyyi leen ko xel bu baax a baax kon mbirum ngóor jigéen foofu foofu dañ ko fi nës nësal ci biir mi ci biir ne cell waaye yëg nañ ko nag te gis nañ ko loi yu bees yi ñu watee el boobu L neuf boobu ak loolu ñuy wax noonu jëm ci wàllu terrorisme loolu de lu baax la wante lañ laxas ci biir nag kilifa yi di nañ ko bàyyi nee na maytuñ kenn ak koo mën a doon nga wañ loxo état ci décision yu jël wala convention yoo xam daa jóge bitim réew nga wañ ci loxol état kooku ku ñuy wax kon ku ñuy wax kan mooy waay wañ loxo état xam nañ ko xam nañ kii wañ loxo état xam nañ ko kon dañ koo ñug ñugal noonu kooku ñuy wax ne bu mu wañ loxo état nag dana ko wañ ndax état ak ngóorama moo ko fa yabal ku yabal sa ndaw ci barab bu jàddee da nga koy corriger delloowaat ko alors kon bàyyi leen xel loi yi ñuy foyee bàyyi leen xel waay ñuy foyee président nun de du dañ du dañ la contre ndax noo la wateeloon wante gars yi nga àndal li ma wóor boo leen bàyyiwut xel daañ la dugal ci kàmb dañ yàq sa liggéey ndax li la koy xamal ne mooy ñii dar ci yow nattal ci ñi àndoon ak yow te génn gis nga ñi ànd ñi ànd ak yow kenn ku nekk ba mu ànd agut ak yow lu bon lu ne wax na la ko bi ñu ànd ak yow ne cell ñi ci génnaat ak as néew lu bon lu ne ñu ngi la koy waxaat kon ñii lañ mel ñi nga àndal ñi des ñoo lañ mel seen bopp doo nga leen fi bàyyi jàpp jàppale la taxut kon mat naa xoolaat xool nit yi qualité yu wóor ñu dar la sa liggéey bii nga àggale ko noonu loolu lañ lay ñaanal tayit noo ngi lay conseiller lu coow li bari bari jegeel diine ji jegeel kilifay diine yi ndax ñoo yor adduna bi ñoo yore àllaaxira yi te suñ lay digal lépp luñ lay digal boo ko defee ndam rek nga cee am keneen ku maa doon nag lam lay digal bakkanam la cay teg soo demee ba mënatoo mu wan la gannaaw dem yoonam gis gis nañ gis nañ gis nañ ñi nga àndaloon ñi ci génn li ñuy wax parlement bi noo ngi leen di waan ñeen ragal yàlla te xam ne nit ñi jéppi nañ leen nit ñi nañ leen xeex ak xuloog saagante taxutoon ñu leen foofu dañoo bëggoon ngeen tëral ay luwaay yoo xam ne luwaay yu dëgër la luwaay yu leer la ginnaaw mënatuñoo àtte wa islam lànk nañ te waman lam yankum bi ma anzala foofu laa ngul faasiqun kon nag li waay yi ngeen tëral war ngeen cee góorgóorlu bu baax ba mu dëppoog dëgg képp koo xam ne kii sa salaire bi ñu lay fay tax na nga wate loi boo xam ne teguwut ci yoon loi boobu dangay ngay wàcc bàyyi ko fi te boo faatoo dugg ci bàmmeel ñu ñu àtteewoo bi bakkaar bu ci ñëw bakkaar bi daal la fekk si biir bàmmeel te diir bu néew ngeen di nekk ci nguur gi nguur gi jeex kenn ku nekk dellu ci lam nekkoon la nga fi tëraloon dañ nekk fi ña fi tëraloon loi yu de ba tey yaa ngi nii di kon delloo si waat leen seen xel atekat yi xam leen ne nit ñaa ngi leen di bëgg a jëppi ndax ah justice bi buñ demee ba képp koo xam ne kii ne la demal tribunal nga ne ah, ah tribunal jëru dem bu ma fa demee tan du ma am dëgg loolu kan lu ko waay jënde jaru kon dellu siwaat seen bopp xoolaat politique bi man nag maa ngi wax ci réseaux sociaux bi ak ah, sociaux ak gone yi yéen ndaw ñi nga xam ne yéen a ngi ci réseau yi di saaga di wax lu bon maa ngi leen di woo ngeen dellu si ñaar rek la war a doon koo xam ne kii ci pouvoir bi la bokk kooku bu dee saaga nit ñi ko joxoon pouvoir bi dañ ko jéppi xam ne kii nërta liggéey xalaat yu baax la war a génn di wax lu baax di di di di jàppale kam àndal ba bu ëllëgee moo am ndam waaye ay saaga du ko sottal di saaga kilifa yi nga xam ne itam ñoo jàppale woon sa kilifa ba mu ne ci kaw nga wàññee ko di ko saaga ci réseau yi boo ko defee ne defee am nga xel tamit ci ñàkk xel nga ko teg tey dimbale ko jàppale woo wala nga nekk wala nga nekk opposition koo xam ne nga wu kuy opposé wu bëgg a jot ci nguur di saaga di wax lu bon nit ñi di la xool ndax yow nit ñi duñ la wóoladiku ba tax lii ngay laaj duñ la ko jox kon ku am xel ginnaaw da ngay xëcc nguur jiitugoo ci te ngaa wax lu rafet ba ñu wóolu la waaye di wax lu bon di wax lu ñaaw di saaga kilifa yi su boobaa buñ la wóolo buñ la wóoladiku wan la gannaaw li ngay bëgg doo ci jot kon delloo siwaat leen seen xel yeen ndaw ñi xam ne nag bu fekkee da ngeen nar a yor réew mi ëllëg du ngeen ko yore ni ay saaga mboolem ña fi daan saaga de tey ñu ngi ni am nañ gàcce ni muut kenn ñi miir ta wax kon fexe leen ba bu leen loolu dal ministère bi nga xam ne moo yore mbay mi noo ngi profité foofu di sant président ci euh, matériel bi nga xam ne génn na ko muy ay tracteur mu jox ko baykat yi te wax ne yéen baykat yi yëpp daa leen fekk fa ngeen nekk defal leen ba dootu leen yorati ay fasaki ay fasaki sareet ay tracteur ngeen di bayee ah loolu de noo koy loolu de noo ngi koy saree bu baax te di ko di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ci ndam ba mën a sotti noonu de bay mi rek lañ yaakaar ku ñu tàggaleeg fas yeeg machine yu màggat yii de dañ la sant bu baax tayit booba dañ la mën a garanteel dañ dañ bayal réew mi ab dund kon loolu yàlla sotti ministère bi yore mbay mi milliards yi de bari na dégg nañ milliards yi yëpp yi génn waaye milliards yooyu bu agsi woon ci baykat yi moom wóor na ma ne àll bi dana naat kon nag ni nga góorgóorloo yaag président ba ngeen génn milliards yooyu na ngeen góorgóorlu nag teg ko ci loxo yu wóor yoo xam ne yi loxo yooyu dañ ko àggale ci ñiy liggéey bu ko defee ñuy liggéey liggéey réew mi jariñoo ko loolu mooy dëgg waaye de bu ngeen ko defee fab ko teg ko ci ay loxo yoo xam ne yi sëñ bi ay tappalekat ci politique dong la ñuy dox su boobaa seen biir la yem baykat yi duñ ci jot seen alal dana yàqu te kenn du ci jot kon nañ ko teg ci loxoy wóor ñoo xam ne ñi ñi ngi liggéey te xam nañ terrain bi xam nañ mbooloo mi xam ñay liggéey ñu jox leen ko ñu dem liggéey kon ministère bi wàllu commerce maa ngi koy woo xamal ne ko njëgi yokku na de njëg yi yokk na ba kawe léegi nag nanu leeral ba xam moom moom gouvernement bi moo yokk njëg yi wala nit ñee ko yokk su fekkee gouvernement bi moo ko yokk na xam nit ñi sonn nañ ko wàññi su fekkee commerçant yi ñoo ko yokk nag nga xam ne commerçant yi kon baaxuñu ndax nit ñi fi ñu toll koo xam ne ki yërëmoo leen ba yokk-yokk xam ne yaa ko yokkal sa bopp war ngaa xoolaat sa bopp te yonent dafa wax ne ni commerçant boo xam ne bu dëggu la boo léegi bu may tàbbi àjjana maa ngi moom ñooy ànd kon ku bëgg bokk ca ñooña su fekkee ne yokku njëg yi bëgg alal li àdduna boobu tax nga yokk ko ndax doo ci jariñoo ministère bi yore wàllu force armée maa ngi koy wax ne ko gendarme yi ak police yi nañ waxaat ak ñoom ndax am na ci ñoo xam ne kat ni ñuy jëflanteeg nit ñi loola kat du métier mi seen jikkoo ndax nag jàpp nit dóor ceene dugal ci oto jog ci kawam maate dem dóor yooyu kat jikko la yu ñaaw yu suufe yu tuuti ginnaaw am na loi yoo xam ne ñoo koy àtte nañu jëfandikoo luwaay yi parce que itam dema dema dem ba nit ñi faaleetuñ gendarmerie faaleetuñ police te dara warulu ko lu may ni ñuy jëflanteeg ñoom moo baaxut te noo ngi ciy teg bët kon nañ delloo si waat seen xel xam ne réew mi noo ko bokk kenn ku ci nekk dangaa war taxaw taxawaayu defar te moytu ak yàq waaye nit ñi son nañ président bëgg naa maanaam nga situation prix yi prix yi ba ba ba mbas mi amee bañ dajalee xaalis bi di ko séddale ak ceeb bi dama laa waxoon ne damaa waxoon ne nañ ko teg ci prix yi ñëpp jot ci kon lépp looy dimbale doomu aadama nañ ko wàññee njëg yi buñ ko wàññee njëg yi ku ci ca bitig ba boo jëndee jot sa wal kon noo ngi noo ngi noo ngi soññewaat jullit yi jullit yi bu kenn jàpp ne gouvernement bi daa bon nga baax maa ngi profité foofu tam di wax ministère bi yore wàllu ndox mi ne ko Euh, service bi nga xam ne moom la jox ndox mi mu yore forage yi ñu ngi bëgg rey baykat yi ci àll bi attanuñ ko attanuñu ko nañ leen bàyyeeg seen forage yi ñu yoral ko seen bopp ñii ngeen leen booleel attanuñ ko dañ ciy gaañu te coow lu bari rek lay indi kon ministère bi ko yoree maa ngi koy woo nekkoo na yërëm doomu aadama yi service boobu xaw ma ECOWATEX la xaw ma na xam ne maanaam ñi ngi rey doomu adama yi àttuñ loolu loolu dama koy lancé waale ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax léegi nag nañ defaraat jikko yi nun nun suñuy jikko kon war nañ koo defaraat bu kenn defe ne danga naan gouvernement bi moo bon gouvernement bi moo bon yaa baax te yow nag yow itam ngay taxaw taxawaay boo xam ne yaa gouvernement bi yéen a yem misaal bi ma joxe kat bu gàtt la gouvernement bi fii daaw joxe na fi ab ceeb koñ bu nekk ñu am fu yu waaye sama koñ bii ma gën a jege biñ ne fukki nit ak ñett lañ fiy jox ku ne ñaari saako ceeb dama leen ne déedéet kenn du lekk bàyyi sa moroom du ma nangu ñu jox fukki nit ak ñett ñi ci des toog di seetaan woo chef du village bu ñëw ma ne ko tànnal ma ay tuur tànnal diw tànnal diw tànnal diw tànnal diw ba tànn fukki nit ak ñett yoo xam ne am naa ci ñoom yaakaar ne ko demal ñu génneel ma ceeb bi bu ñëwee ma yokk ko ba ñëpp man cee jot kera ba mu demee génne ceeb bi ña a gënoon yaakaar ba tànn leen kenn ku nekk ba nga jógee jële sa ñaari saako da nga koo diri dugal sa kër tëju moom kooku buy xas gouvernement bi fu mu ko fu mu ko teg ah kooku booy xasal gouvernement foo ko teg kenn ku nekk te ña yaakaaroon laa kon ña ma yaakaarul woon ñu ñu def ña ma leen kenn ku nekk da ngaa diri saako dugal sa buntu kër na jàll kenn andi lu ma ko nga xam ne damaa mujj jënd ceeb jox chef du village bi mu door mu door jël ak ñaari saakoom ak. cee séddale séddale doomu aadama yi ko da da daa topp bakkanam waaye tariwul kenn ndax bu ma bu doonoon gouvernement bi itam noonu lay def ginnaaw sa moom bokkum dëkkandoo yow lii ñu la jox nanguwoo ko bokk ak moom loo mën a wax wérul suñu jikko yi nañ ko defaraat nañ defaraat suñu jikko yi xam ne am na ci loolu kat ab gouvernement am na ci loolu ñun la noo ngi siyaare ñëpp noo ngi nuyu ñëpp noo ngi gërëm ñëpp noo ngi ñaanal ñëpp yàlla yàlla taxawunu yàlla yàlla sàmmunu yàlla yàlla aarnu yàlla yàlla bàyyilu suñ kilifay diine suñ Muntaxa Mbàkke naalam yëpp yàlla sottal ko ni ko sëñ Tuubaa bëggee mu bëgge ko ni nun ñi itam na ànd ak moom liggéey bi ba am ngërëmam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu